effectivement comme ni mu ko waxee nii parce que tey jii si tu dois jouer avec une équipe contre une équipe dans six dans trois mois je pense que tey jii euh, ki ci def résultat bu positif peut-être mun na am benn genre ascendance. Mm-hmm. soo seetloo temps yi ci réseau yi. Camerounais yi su ñu mm-hmm. amee fit di tooñ ñu wax lu ne c'est parce que euh, ces dernières années ñoom ñoo ñu gagné instant yi ñoom jàpp nañ ne bi ñuy wax naan match bi am na benn réglementation CAF boo xamante ni ça interdit mais sur les réseaux les Camerounais ñu ngi doon wax lu leen neex ah da ngeen di ñëw leen ñu dóor leen après su ñëwaat di <laughs> donc parce que instant bi euh, et de bonne guerre tamit ku la mm-hmm. jàpp door la année yëpp xam nga voilà quoi dina jàpp ne moo la mën mm-hmm. donc moo tax gëmuma et puis Kalidou Koulibaly même daa di en conférence de presse on mm-hmm. va à 100 pour cent man gëm naa ne les deux techniciens vont essayer de mettre tous les tous les deux les mais atouts pour gagner sa match. parce que loolu et comme Sénégal surtout Sénégal mi nga xamante ne nii dama bëgg gars yi fàtte match ci Brésil bi surtout dama bëgg pour ne pas oublier le football africain est trop différent est très différent il y a l'engagement il y su fekkee nag da nga mënoo gagner contre Algérie nga ñëw contre Cameroun nga am difficulté tu dois te remettre en question. Mm-hmm. moo tax ma gëm ne match bi. du nekkul match bu war a ñàkk c'est-à-dire Rigobert keroog mu ngi ko doon wax ne y' a pas de match amical bien avant seen conférence de presse mu ne y' a pas de match amical effectivement ce sont des termes des appellations parce que euh, je sais pas FIFA amul beneen appellation bu mu leen di wax ak amical la ñu wax mais ce sont des matchs yoo xamante ni nii dañu am seen importance et puis ça va permettre aux de tester des des systèmes yoo xamante ni nii peut-être dina ko mun a exi dina ko mun a utiliser dans des dans des compétitions dans dans lors des compétitions. Euh, dernièrement on ak mais ak nu mu gàttee nii regroupement bi nu mu gàttee nii est-ce que testé yenn yenn système yoo xamante ne mais soo ko deful kañ nga koy def adapté woo ko avant. soo ko deful kañ nga koy def. Aliou Cissé créé commencé woon na fi benn système défense à trois. Mm-hmm. gars yi critiqué ko mu bàyyi. man je pense que daf ci war a insister. daf ci war a commencé waat parce que des fois di nga toll ci situation yoo xam tu en as besoin. Mm. et puis ak potentiel bi nga am. tu as quatre trois joueurs yoo xamante ni ils peuvent te constituer un benn défense à trois su ko defee sa milieu terrain nga nga nga densifier ko am ñoo xam dañuy jouer piston comme genre Crépin ak ak Jackson su ko defee di am surnombre quand tu sooy attaqué di nga am tamit surnombre au moment des replis défensifs je pense que match la boo xamante ne nii vraiment euh, on va assister à un match très plaisant du nekkul doo gis. Euh, entraîneurs yi faire du n'importe quoi bu bu m'excuser du terme c'est-à-dire jouer loo ñuy première mi-temps pour jouer non non non rotation yi duñ bëri dina dinañ ils vont être vraiment très rigoureux dans ce qu'ils dans ce qu'ils font maintenant mm-hmm. euh, l'équipe qui va gagner certainement peut-être mun na commencer am aspiration boo xamante ne ni parce que baromètre la lii ñun Sénégal dafa waroon am ñaari match Euh, de préparation malheureusement on n'a pas pu jouer contre, contre le Mali. Mali. donc c'est un match boo xam ne vraiment c'est très important et puis nit ñaa ngi xool su fekkee Algérie gagné nañu bërki dem waxuma gagné wuñ de ñu def match nul ak Cameroun rek moi je pense que c'est pas un bon résultat. Mm-hmm. on doit tout faire pour gagner le le, on doit tout faire pour gagner le Cameroun.